nañ ko jaay mën nañ ko jaay deux cent cinquante mille jël cent mille bi jënd ko xar c'était cent cinquante mille faj soxla yi ñaw lu ci def ki lépp jënd ci soble lu ne ci tabaski moo gën eh, kii ko nii rek te soxla yi ne fi ah moo gën. moom xar mi. ah xam nga du xarum kër gi. kan moo jënd xar mi indi ci kër gi. Ah, yow sa xar la. jaay ma. duñ jaay xar mi faj ci soxla jaayuma sama xar xar mi xel yaa xelu xale yaa ngi ci mbay xont na guddi xont bëccëg tarool dara ndax xar mi yefal ko ba mu toll nii mu toll ma jël ko di ko jaay pour lan dana ngaa laax jaay doo laax lekk xam du am xont moom du am xont ndax kër leer la la wax duñ jaay xar mi moo ko jaay xaaral yegg dégg yàlla na ma yàlla musal ci yow sax ndax dugal nga sa mi wi ci xar mi yàlla na ma yàlla musal ci yow ci sama xar mi teg nga ko défense torop torop torop torop yàlla na ko fi yàlla bàyyi tabaski ak jàmm ak salaam ba ñu muurloo ko voilà merci beaucoup. yow da abusé ci ci journal Oui, quoi. les lions. les lions xam nga ñoo xew Coupe d'Afrique bi la. et puis mais le Sadio Mané. Mhm. Euh, Crépin mon gauche. ah bon chez mon gauche bon man m'a informé hein ah. fait pratiquement bon man m'a tax ñuy joué fële extérieur. tu ne sais pas que Idriss Gana c'est mon neveu. ah bon c'est ma jarwaat la ku baax. pourtant man maa ko lijjantil mu dem fële ci kaw. ah bon. waay waay waay waay waay waay. waay chemin gauche les jours là chemin gauche. ñaan yàlla rek ah. ñaan yàlla non non hmm? non nous vont gagner nous vont gagner inchallah. ok nous vont gagner. allez y a pas de problème waaye. quel est ton problème. Euh, tu sais ñing ginnaaw ay jàmm. dëkkandoo jàmm moo ci gën. comme olof laa di nit ni tey garabam. man suma problème. du sama goro nga sax suma sœur ngay sëy wala dara mais. xam naa ne war na waxtaan ak yow situation bi muy euh, suma rappel bi ma war a jot tu sais hein? Euh, donc pour euh, bi ñu ko njëkkee dugal amoon ay problème administration problème mu kayit ñu dugalaat ko pour rectifier ko mais cette fois-ci leer na cinq jours après tabaski incha dinañ jot rappel bi ku ci nekk di nga am au moins moins moins di nga am douze millions ah et en dehors de ça suma jarbaat comme noo la mu war ko waxee Idrissa mi ngi ma war a yónnee. Gana mi ngi ma wara yone pour ma régler sumay problème Légui nak ma bëggoon nga aider ma lebal mo au moins ben 250 000, ma régler ci problème mu tabaski bi bu bu inchallah incha mun naa la ci sax tégal ah mun naa la ci tégal. mun naa la ci tégal. Wa loolu mo la arrête arrête arrête Fall tu sais tu sais moi tu ne veux pas me frapper. si tu veux frapper tu veux frapper de de de de de de de de, en bas. Ouais. mënoo maa boudé dor ni ci souf ngay dóor mais pas man. dóor comment c'est affaire pension bi ngay wax ni xamna lepp lepp xamna ko leer na ma naan dara. non non non arrête arrête Oui, ma bu da ngay insister nga jóg nga dem ah. non non déglul déglul man may wax. Ah, nañu waxtaan. man may wax man lo indi ma fekk la ca. da nga ne lo jamm ca gën. man bo indé jamm ñu jamm bo indee ay ñu ay. moi je m'en fous hein j'ai mon argent je fais ce que je je je je l'entends un point, un trait. Bon, bon pour ranger, bon, une solution d'Allah. la fi gis. gis Il eh, vrai que c'est l'approche de la tabaski tabaski mi non non mais kuy bi bu non y a quoi Non, tu comprends. non nañu proposition quand même mais tu may je t'écoute il faut m'entendre. je t'écoute. je explique. grand grand moutons là. Hmm. si tu veux que je me tout court mais ay affaire de dette la ay pension faire Tu fen tu fais? Tu dara amoo dara dara non Tu ne maa non du ma soxla tax nga comprendre nga. Tu rek am. Tu ma ni nga

écoute, 200 000 lascours. Je ne peux pas de station de ça au lieu de, de, de mire comme ça. Lui. Yorol dara, t'es que dara, on les arranger. Oh, ok, il n'y oh, a, pas de problème. Mais aussi, vous faites que l'inga wax mi moi ci yow. Mu yem sama digënté yow. Pourquoi Du sama jabar wala kenn mais sama dombi, bi, góor bi. Xam nga li mu daj ci xar bi moom moo ci sonn ba mu toll nii. Mbay, hein? Dinaa la ko

d'accord accord xam DG. DG ça oui ok ça. bon après je oui. donc on xaar ba ay 18h et quelque comme ça mu suis calme qui ma le ko D'accord ok. faire ça non du faire ça tàngaay bi je vais ci génn xaar bi quand même alors. Oui, ba Bataille, je suis C'est je suis d'accord À 18h nga a pas de problème. Il n'y a pas de problème D'accord y' a pas de problème ok waaw. bon c'est bon Il y' a pas de problème loolu leen dara tekkiwu leen dara da di dimbali rek parce que. ah Badou rek arrête quand même. c'est pas grave non dara il faut reconnaître. faut que ah. d'accord y' a pas de problème ok. pardon mais euh, s'il te plaît. yëkkati euh, chaise bi yóbbuwaale ko. góorgóorlu fenn di duul nii comme ça dajale nii comme ça hein, pourquoi c'est mentir pourquoi c'est mentir la femme pourquoi c'est mentir faut dire la vérité vérité piment vérité garnie vraiment mon vieux Okay. Okay. abi lan la duma sa bàjjen bokk ak sa bay nday ak Irak Irak gi nga nek ak man ci Gerbinga keur gi luko war sandai guerre bi nga bëgg jël jël ko teyé ko ndax sa nday sa nday lima sekk ak mom ak lima indi ci bir keur gi limay def ci bir keur gi sa yon nekku ci abi xex bi du sa xex lamb ji du sa lamb abi nga bëgg teug lamb ji baxu lamb ji xex lamb ji yeenu ma tek ma ci suuf du sa ndam to ci am ndam abi man bajjanay bay abi boy sey malay mur maa lay tagg maa lay jox sa jëkkër maa lay yëkkati su ma la yàqee nga yàqu bu ma la defaree nga defaru wàcceel ay faut avoir les pieds sur terre ab je te dis tu es petite. bàjjal man dama jël sama tànk bi dugal ko ci sama daalu ndey mu fees dell ma maaseeg moom nag yow dangaa tëj sa kër ñëw ci sama kër baay bii ne dangaa woor si ñu def na jàmm nga indi bàjjal nga ñëw mel ni kaani gu wex xat indi sa musiba gis nga bàjjal xeex bi nga nar a xeex ak sama ndey man maay ki koy sot hmm? waaw ndax man duma la ci seetaan bàjjanay baay deret nag dafa foor li deret foor tax ma def li ma def man abi sama jëkkër dafa ami million jox ma ñetti million benn bi ma jël ko teg ko ci kër gi pour bu marchandise bi wàccee ma di dowaanee ko dem nag jënd fa samay cuub VIP ak samay Facebook ak samay takk indi ko nag di jox say morom rek ni koy jaay di ci am dara ma yene la ko nag ndax li nga nek sama doomu càmmiñ sa farantu gi nga nek ci dekk bi sa jurom ñent fari te la dabe aji la bëgg mu dakk ma yërëm la nak ñew ne la apprendre nak yow ne nga alese ne nga do jël ne nga do jël alal ji bàjjan man dama jaayul tay jaay mu suba jaay ma ginaaw suba sama far yu bari yi ma jëriñul dara nak deret da for yow yaay set bi may xolé sama bop bàjjan mooy bàyyi yaa may deg sama barang barang ji ya ma dugaloon ci natt bi ba cëg francs ma di la ko versé samay far di la ko jox nga di ko bis buma ma waree sëy dinaa sëy bàjjal yow doo sëy tey doo sëy ëllëg koo yar da yow doo sëy ëllëg doo sëy ëllëg su ma amee mooyu bi nga doon boo jógee dem si góor ñi ñu jàpp la yow demal rek yow bu ma la xoolal demal yow xool xool ko xool ko xale bii xale bii xool ko xool ko la muy def xool ko yow sa nday na la yàqu nga yow perdal nga sa jikko ji bon na sa jikko nday bon na sol nga daal laam ba jot ko kii billaay kii moo woy xale bi ayo man dama waññe waññeeku wala de ak ah, ma waññeeku su day naa kër gi ni ko toogal fii mbay génn bàyyi sama kër bu kër sax ñu naa ah ko fekk mu ne ñaar may wax na dëgg yow fan nga dem ah yaay naa yaay xam na sa kaw moom lañ dagg buum ba génn xar xar nañ def ko ci kër gi xar nañ doon yàq ana xar yaay xar dañ koo dagg buum ba moom laa doon topp nii sànq ba léegi topp naa tànk yi ba sonn. ay lu génn xar bi yaa dama koo xam nag koo dara may ma am fit yéeg ci kaw moom bu yéeg yéeg yéeg ba ci kaw nga xam ne moom daal xam nga yóbbu nañ ko moom xam moom dañ koo yóbbu moom yóbbu nañ xam tànk yi topp naa ko ba sonn ba ca boor tali ba xam dañ kau yóbbu kuy mi sama yaay jëndoon ku kuy ko yóbbu loolu nu ñuy sàcc xam ne yow yaay dem ci xam ne yaa koy tëj ko xam ne dugg xam nañ waxaat ci dëgg kenn du sàcc sa bopp dafa waaw waaw waaw da ngaa fàtte woon tëj ci kaw yaay tànk tànk sàcc yi mu ngi ci kaw mbaar ma ca mbaarum xar ma lu xew xar ma xar mi am lay sàcc sàcc waaw xar mi ci kaw da koo yéewi wala da dagg tànk waajaa fa tànk sàcc yaa nga fa buum gi jox leen ma daggatu buum bi kooku baaxul dana fi dellu si daf ñuy liggéey buum nga yaa xar ma bu fi jógee moom loxoo ko fi jële xar ma da ca terrasse yeew ko loxo ko fi jële ah, ah. mu naan maa ko sàcc yow xool nga ndax daggul tëb ci terrasse bi. ne jëkki waaw dara. ka dagg da koo xam. <laughs> xam na bu baax kër gi. yaay loolu amul problème. Ah. xar ñoom day ami fay. Ah. sëñ Mamour Mbacke ko feeñal. yow wax nga dëgg yow. waa kër sëñ Manoumbe Xabaane loolu rek mooy seen métier. Ah. daggitu buum gi wala fi xar mi nekkoon rek. foo eh, sama xar kay moom na feeñ ci nii mbaa ci naa rek man. du fanaan papa. ñoom lay jox raatu kànd tudd gis nga bu ñu ko sottee fi xar mi nekkoon. Ah, kay da ngay néew bi ci saa si. yaay raatu kànd lañ lay diw xoola ki ko fi defoon de mu nga nee ba tey. mënul mënul jóg loolu amul problème. da dem nga màgg. jullit nga. papa jullit defal naa xar mi yàlla nu ko joxoon. jarul nga lor doomu aadama ñii yuy waxi xale la ñuy wax. kenn du lor nit ngir am xar yàllaa ko fi indiwoon indilu ko. waaw kii loolu la sama xar jaral na ko. lan xar def leen ndànk du ko yóbbu dama ne def leen ndànk bu leen dugg ci loolu jullit ngeen. papa nag bàyyi am xar jël ko def leen ndànk am ami defal ndànk yow mosoo dëgër ko defal ndànk bu def yow loolu lan ngay def bàyyi ko wax leen taxaw leen bu leen dugg ci loolu ma bàyyi de man man maa sàcc xar bi day leer ma ni baax yaay bàyyi xale yi duñ fi liggéey doomu aadama ngir ma ni bu dee moom bi moo ko sàcc dinaa sàcc de man dinaa xoolal xar bi wóor na yàlla papa di jënd dépense mu lay tënk nga bëgg li jënd xarum tabaski bàyyi ñu di jënd bay dama bay dama kay bay bay dama wax bay bay dama wax papa yow lan la mu doon la ko am dañu wara musal ni ñëpp yow yow ngeen ma ci am yow ñi ni dañ koy def gaaw leen eh wuy ma bi li ngeen nar dem dama damay génn kër gi bala génn fenn nga man ñu la dem. ma toog fu ñu lore doomu aadama. fekk na bi mu yéene bi muy feeñ bi ko fekk. déedéet fu ñu lore doomu aadama